asalaamaaleykum mbokk yi déglu dal leen ak jàmm ci atum 2024 la ñu fas yéene amal ay élection présidentielle fii nga xam ne moom mooy ci biir réew mi loolu moom moo tax ba ñii nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir société civile ñu nekk ay droits de l'homme wala bokk société civile citoyenne ñoom bëgg nañu nag ci wàllu élection yooyu nga xam ne moom la ñu dëgmal mu nekk ay élection yu mucc ayib loolu moom moo tax boo culikay bii di si quotidien mi ngi ñuy xamal ne ñi bokk ci biir société na ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir li ni mel war a mun a nekk loolu sax moom moo tax ba saa su ngi ngi faral di amal ay waxtaan waxtaan yooyu yëpp nag ñu ngi koy jëmale ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci nguur gi wante it ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir l'opposition bi ndaxte jot na ngir ñu daal di dalal tension bi nga xam ne moom la ñu fi nemmeeku fexe nag ba dëgmal ci wàllu élection yooyu te du am benn rëq-rëq wala boog benn fitna goo xam ne dañ ko fee nar nemmeeku loolu moom moo tax ba ci mel ni Alioune Tine te mu jiite Afrikajom Center di xamle ne ñoom fu mu nekk ni nag pare nañu ngir ci wàllu élection yooyu nga xam ne moom la ñu dëgmal ci dox dox ay tànk yoo xam ne dina tax daal ba du am lenn luñ ci rumanaat Alioune Tine moomu dañuy des ak moom ndaxte culikaay bii di réew mi quotidien bi ngi ñuy xamal ne moom daal dinay tontu ginnaaw kàddu yi nga xam ne ministre Abdou Karim Fofana yore kàddu gouvernement bi daal dina koy fësal jëmale ko ci ñi nga xam ne ñoom ñoo bokk ci biir société civile ndaxte su fekkente ne dañu leen di tuumaal ne ñoom dafa am fu ñu far Alioune di ko xamal ne moom farul fenn de wante su fekkente ne nag dafa am koo xam ne dafa jóg ngir daal di fiy dëggal injustice wala boog ngir daal di sonal ay mbindeef Alioune ma ngay xamle ne du nekk ci wetu kooku day nekk ci wetu ki nga xam ne dañu koo sonal dañu koy jéem a xoxatal ngir war kaa mën a jàppale muy xamle ne bi fi Macky Sall nekkee candidat ñu doon ko indil ay jafe ci ay wetam la nekkoon ngir jàppale ko ci xeex bi kon kay tey ñoom ñii nekk ak Macky Sall lu leen neex ñu wax de wante ki nga xam ne de moom mooy Alioune Tine la mu xam ak la mu gëm moom mooy ne di saytu ak ak yelleefu doomu aadama moom moo ko fi tax a te li ni mel moom lay daal di wëyal Alioune tamit daal dinay ñëwaat ci procès bi am ci diggante Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang te mu jublu ci affaire Prodac ci mbir moobu sax dañ ciy des ak jolikaay ne Mame a gaawee bi di koy euh, dëggal di Mame topp nag ki nga xam ne de moom mooy Idrissa Seck ci gàtsa gàtsa gi nga xam ne nag moom la daal di wootee affaire Prodac boobu dañ ciy des ak kii di Thierno Alassane Sall ndaxte moom ci biir jolikaay bii di l'info daal dinay ñëwaat ci nañu yoree nag koppar yi nga xam ne dañu ko génne génne woon dugal ko ci wàllu programme des domaines agricoles communautaires moom mu daal di gis ne luubal njuuj njaaj rek la ñu nemmeeku ci wàllu Prodac ndaxte la ñu diggee woon yëpp gisuñu ci lenn Idrissa Seck moom dama ngay waajal boppam bu baax a baax ci wàllu élection présidentielle bi nga xam ne moom la ñu dëgmaloo coolikaay bii di tribune du ñu xamal ne Idi moom ma ngay manoeuvrer rek Idi fu mu nekk nii moom toogatul taxawatul la ko yitteel moom mooy wàllu élection yi nga xam ne moom la ñu dëgmal coolikaay bii di le quotidien nañu sax dinay tàmbali benn campagne de collecte de fonds moom bëgg na nag sénégalais yi jàppale ko ci wàllu élection présidentielle bi nga xam ne moom la ñu dëgmal loolu kon la mu wundu moom mooy ne Idi dafa fas yéene nekk candidat euh, ci wàllu élection yooyu parti fa fële nga xam ne kon moom mooy ca diwaanu Kër Massar autolikaay bi de le peuple moo ñuy xamal ne bëri na ñu fa nekkoon daal di dëddu parti boobu autolikaay bi di le peuple nañu Maguette Diouf Sarr nekk adjoint au maire moom jóge na ci parti bi nga xam ne kon moom mooy Pastef ak ku ci mel ni Lalla Ba Serigne Mor Ngom ñoom it jóge nañu foofu nga xam ne moom mooy ca parti bii di Pastef ñu dellu si waat ak julikaay bii di Sud Quotidien bi nga xam ne nag tey jii dafa daal di dalal Jéemati Fall mu daal di jël xalimaam bind ko jëmale ko ci wàllu troisième mandat wala boog troisième candidature ak lu mënti am daal muy daal di xamle ne li ñu gën a yitteel moom mooy xool ba xam naka la ñuy mën a fexe ba coowal troisième mandat yooyu du indi nag na fii ci biir réew mi ndaxte am na ñoo xam ne sukkandiku ci mbirum jihadiste comme nañu ko nemmeekoo ci yeneen dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo ñu wër fële nga xam ne moom mooy ci diwaanu Matam benn policier bu tudd Ousseynou Silla moom moo ñàkk bakkanam ginnaaw ba mu daal di tiire benn bal ci poojam colikaay bii di L'Obs mi ngi ñuy xamal ne njabootu dem si yàlla policier bii di Ousseynou Silla ñoom dafa mel ni ne gëmuñu la nga xam ne daal moom lañ leen wax moom mooy ne policier bi da manipuler li nga xam ne kon moom mooy gànnaayam sax moom moo indi jéye boobu ñoom ñu daal di gis ne opération yi ñu def ngir génnee bal bi bal bi ci boppam ak complication ya ci jot a am loolu yëpp dafa tee seen xel ñoom daal lañ leen di wax jëmale ko ci génnup àddina policier bii di Ousseynou Sylla dafa mel ni ne gëmuñu ci lenn ñoo jeexale ko génnup àddina Ibrahima Sène bokkoon ci parti bi di PIT ci guddip euh, samedi jàpp dimanche la dëddu àddina démb la ñu ko doon jébbal boromam ba ñuy def levée du corps ba fa li nga xam ne moom mooy ci hôpital principal njiitu réewum Sénégal di Macky Sall teewe woon na fa ñëwaat na ci diggante ak ki nga xam ne moom mooy Ibrahima Sène nekkoon benn patriote bu dëggu ku yàggal xeexal démocratie ak tamit ak ak fu doomu aadama yi ab intellectuel bu xarañ kon moom moo daal di dëddu njiitu réew mi jébbal njaalam ñi nga xam ne ñoom ñooy njabootu Ibrahima Sène ak ay xaritam groupe Sud Communication ci samay kàddu ñoom it ñu ngay jébbal seen njaal njabootu Ibrahima Sène di ko ñaanal suuf sedd ci kawam lii moo nekkoon box dulukat yi li gën a biir autolikaay yi ñu leen di ñaanal njeexte lu bës ak jours, le scrutin présidentiel du février approche à grands pas, mais l'on s'y achemine sur fond de tensions explosives euh, du fait d'une cristallisation extrême de la classe politique, pouvoir comme opposition. C'est pourquoi, nous disent nos confrères du journal Sud Quotidien, la société civile sénégalaise s'active tant bien que mal à lever les obstacles qui pourraient en hypothéquer la tenue. C'est ainsi que les diverses organisations qui la composent, qu'elles fond euh, dans le rabibochage des positions les plus tranchées des uns et des autres. Objectif, jouer leur partition dans la tenue d'une présidentielle 2024 sans anicroche. Et donc, retenons avec nos confrères du journal Sud Quotidien que le processus devant conduire à une élection présidentielle 2024 crédible, transparente, inclusive et apaisée doit ainsi être accompagnée pour contrecarrer la préélectorale au Sénégal en renouant le fil du dialogue acteurs politiques. Et cela, Alioune Tine n'a de cesse de le répéter. Selon le président fondateur d'Africadium Center, le Sénégal est confronté en direction du scrutin de février prochain à moult chapes de plomb, dont un contentieux électoral sur l'éligibilité des candidats en 2024. Justement, nous restons avec Alioune Tine, qui dans le journal Réumi Quotidien répond aux attaques du ministre porte-parole du gouvernement Abdou Karim Fofana. Alioune Tine a soutenu que la société civile pour faire allégeance à qui que ce soit. Alioune en a profité pour mettre les points sur les i en déclarant qu'il n'est pas neutre, il est contre l'injustice. Et s'il y a de l'injustice, il la dénonce. S'il est neutre par rapport à l'injustice, il se dit que c'est de la fumisterie. Et Alioune de se rappeler que quand Macky était dans des difficultés, avant de devenir président de la République, il était beaucoup plus proche de lui que la plupart des gens qui sont autour de lui et qui parlent aujourd'hui. Alioune est d'avis qu'on est dans une situation 62 a également donné son avis sur le procès en diffamation opposant le ministre du Tourisme Mame au leader du parti PASTEF Ousmane Sonko et lors duquel ce dernier a été condamné à deux mois avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Et justement concernant ce procès, même si Ousmane Sonko a été reconnu coupable de diffamation contre le ministre du Tourisme et des Loisirs et condamné à deux mois avec sursis, Mame Mbaye son propre qui se résume au gatsa gatsa, une herse que le maire de Ziguinchor devra déjouer pour poursuivre son chemin vers la présidentielle de 2024, nous disent nos confrères du journal Critique. Retenons avec nos confrères du journal L'Info que l'affaire Prodac continue d'alimenter une vive polémique, notamment avec le procès Mambéignan Ousmane Sonko. Hier, le leader de la République des valeurs, Tierno Alassane Sall, s'est fendu d'une contribution pour éclairer la grosse nébuleuse que constitue ce projet. Et pour Tcherno Alassane Sall, le PRODAC, le programme des domaines agricoles communautaires, est devenu le syndrome de la corruption généralisée et de la déliquescence de notre administration. Et selon lui, le DAC fantôme d'Itato en est un exemple flagrant. Au départ, il y avait de bonnes idées, mais au finish, on assiste à la non-atteinte de l'autosuffisance alimentaire et les promesses faites aux communautés n'ont pas été tenues. Les activités d'élevage sont au point maintenant, l'indigence est encore là, ajoute Tierno Alassane Sall. Idrissa Seck, le leader du parti Rewmi, ne compte pas jouer les seconds rôles en direction de la présidentielle de 2024. C'est ce que nous disent nos confrères du journal Rewmi Quotidien. En effet, Ndamal multiplie les manœuvres pour atteindre son objectif, à savoir remplacer Macky à la tête de l'État. Et la destitution de Yankhoba Diattara de son poste de vice-président de Rewmi, son déplacement de ces manœuvres, les informations distillées ayant trait à une médiation d'Idi euh, qui se serait rendue chez Ousmane Sonko sont à mettre dans le lot des manœuvres en question. Pour nos confrères du journal Le Quotidien, Idi qui souhaite briguer le suffrage des Sénégalais semble se faire plaisir à jouer au clair-obscur et il a lancé une campagne de collecte de fonds pour la présidentielle de Dans le quotidien Le Peuple, nos confrères nous parlent de cette par la majorité présidentielle. C'est la saignée à Pastef Kormassar, nous disent nos confrères. Revenons avec le Sud Quotidien qui accueille aujourd'hui dans sa tribune Diebatifal, qui s'est beaucoup intéressé aujourd'hui sur la question du troisième mandat ou bien troisième candidature ou le second mandat de cinq ans qui semble être, selon elle, une grande diversion organisée à dessein dans un amalgame hétéroclite surfant sur l'actualité de la sous-région, lanti une nouvelle souveraineté bâtie sur les épaules de Wagner. Pour Diematifal, il ne faut pas se laisser divertir, car face à l'agenda caché religieux, celui de l'extrémisme, de l'intolérance et du radicalisme, de triste réputation dans les camps des djihadistes et les pépinières des moudjahides, le troisième mandat reste toujours une ligne de fracture, mais aussi une peccadille au regard d'un pire danger. Dans le journal L'Observateur, nos confrères s'interrogent qui s'est une balle dans la cuisse. Les faits se sont déroulés au commissariat central de Matam. L'incident est survenu au moment où le limier manipulait son arme de service. Et selon nos confrères, il y a des problèmes concernant la balle reçue à la cuisse, l'opération, les complications, mais aussi le coma et le problème de sang. Ses parents émettent de sérieux doutes sur la thèse avancée. Et terminons par le rappel à Dieu d'Ibrahima responsable des questions travail. Il est décédé à Dakar dans la nuit de samedi à dimanche. Nos confrères du journal Libération nous indiquent que le chef de l'État, Macky Sall, était hier à l'hôpital principal de Dakar pour la levée de corps et il a salué la mémoire d'un patriote sincère, un combattant acharné de la démocratie et des libertés, un intellectuel disponible et généreux. À sa famille et aux amis du défunt, le président de la République a présenté les condoléances de la nation. Touba présente aussi ses condoléances à la famille du défunt. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.